communiqué bi bàyyi ko ministère la santé et de l'action sociale tey bésu ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru février mi ñu nekk ministère la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajalim ci ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaari test yi ñu ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci téeméer ak ñett cas contact mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxaso woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar ñuy tuddee cas communautaire ñooñu nag seen lim ni la tëddee ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci juróom-ñetti fukk ak ñeent ci gox yi fukk ci Ouakam juróom ci Liberté 6 ñeent ci Ouest Foire ak Diamniadio ñett ci Dakar Plateau Médina Gueule Tapée Mariste Yoff Ngor Grand Mbao Pikine cité ISRA Mermoz Sacré-Cœur 2 Sébikotane Guédiawaye ak euh, Petit Mbao benn ci cité Cap-Verdienne Fann Résidence Bentali Liberté 2 Almadies Mamelles cité Djily Nord Nord Foire Sicap Foire zone de captage cité Aliou Sow cité Fadia cité Las Palmas Malika Kër Massar Mbao cité Tako ak Kounoune ci région yi am nañ ci téeméer ak ñett ci gox yi ni la tëddee fukk ak juróom ci Thiès fukk ak ñaar ci Saint-Louis juróom-ñett ci Touba ci Tivaouane ak Louga juróom-ñaar ci Saly Kaolack ak Kédougou juróom ci Mbour ñett ci Vélingara Touba ak Diofior ak Diofior ñaar ci Fatick Kolda Popenguine Richard Toll Sakal ak tàmba benn ci Bambey Bignona Diakhao Guinguinéo Kébémer Kër Massa Kër Momar Xombol Matam Passy Taïba Ndiaye Mboro ak Sédhiou ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi malade ñi xam ne ñu ngi entré woon hôpital ak ñi xam ne ñu leen toppoon ci biir kër yi wér nañu bët ni ci tey dinañu génn bu ci yàlla ànde juróom fukki malade ñoo nekk réanimation juróomi malade ñoo ñàkk seen bakkan ba su démb alxames ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñu ñu topp ci biir kër gi ñu ngi am tan ci bësu tey dale ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak ñeent ak fanweer ak benn ci ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom-ñett ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar wér nañ juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni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 biñ ko xaymaa ba léegi bi campagne bi tàmbalee ba léegi ñu jot a ñàkk ci Sénégal muy tollu ci fukki junni ak benn yu toftal juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent jot nañ ci ñàkku yi ministère la santé et l'action sociale muy woo askan wi ñu gën a sàmmante ak digle yi muy fàttali bés bu nekk di leen wax nangeen ngeen aar seen bopp aar seeni njaboot aarale askan wi di bàyyi xel ci mbir yi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 ci hôpital wala dispensaire wala structure santé bu nekk ministère la santé et l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wa